jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontante ak mbégte comme ni leen koy defalee saa su ne bu ñu ne leen 20 xel day dem ci bis bu rëy bi nga xamante ni ñu ngi ko doon waajal démb combat grand combat bi doxoon ci diggante Gora Sock ak Fils de Balla ñu dem ba benn moment ñu jékki-jékki dégg ni kii di Gora Sock am na blessure combat bi nga xamante ne sénégalais yi ñu ci bari bëggoon nañ ko doon ko xaar mu dox ci diggante Ronaldinho ak Kaaw Gourdin promoteur bi nag combat boobu rek doy na grand ba moom laay yéegal def ko grand combat ñaari xale yi ku ci nekk wane sa bopp ñu bëree wuuree ci biir bëree xale bi di Kaaw Gourdin daan Ronaldinho mbokk yi mu ñu seet si ko tey fekk ko ci ay mbokkam ci ay xaritam ci ay njagañaale dañu koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu wéyal moom waxtaan bi mbër siyaar naa la ndam neex na de. waa Jili ñu lay siyaar ndam li ginnaaw loolu ah ñu ngi ñu ngi ñu ngi wax baatu onze billahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim mm. ginnaaw bañ sant yàlla di julli ci yonante bi di sant suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ sëñ Abib Si bi ma Abdou Aziz Si Dabaax mm. di sant Dalifort fooraay bi mm. rawatina képp kuy bëggee Kaaw Gourdin rek Kaaw Gourdin moo ngi lay bëggee ak fépp fa mën a nekk ci diaspora bi ak ak fépp foo mën a nekk rek di bëggee Kaw Gourdin Kaw Gourdin mu ngi lay bëggee rawatin ma fi ma fekk nii ci samay sama koñ hmm. fekk ma sama baas fi nga xam ne fii laa juddoo fii laa yaroo hmm. fii laa màggee hmm. fii laa amee lépp te lépp lu may am tamit maa ngi ñaan yàlla amee ko tamit ci koñ bi di leen masaw di leen jégalu di wax waaleykum salaam Baye Jili ndam boo daanee ba pare ci moment bi nga daane am ndam lan ngay njëkk a xalaat lan waaw Baye Djili moment boobu dañuy sant yàlla parce que sunu borom rek dong moo mën moom mi dara tawul. ñu jàkkaarloo ki nga xamante ne mooy Ronaldinho di ko nuyu passage muy borom baax ku baax la. baax parce que même bu dul làmb ji sax sekkoon nañ jàmm buñ dajee ci làmb wax dëgg yàlla mu nekk ku baax ñu bëre yàlla may ma ndam ci kawam. Hmm. dafa demite mérité wul moo tax mais sunu borom moo dogal loolu. buñ daanee tamit dañuy sant yàlla xam ne yàlla moo ñu moo ñu may. Hmm. waaw dina ñëw ci combat bi mais dañuy dellu ginaaw tuuti rek. Hmm. Euh, sa diggante kaw kaaw euh, Ronaldinho. Hmm. moo nekkoon sa ñaata combat. waa ba moo nekkoon sama quatorzième combat xaw quinze quinze combat. ñaata victoire nga am. lépp victoire la défaite daal laa xam ne jàpp naa ko trois défaites la trois défaites <laughs> waaw trois défaites yi kana kana la daan. deux ziga moom a daan. waaw Sidi Diamaguène. waaw ak Këllëgi. këll gi. Mhm. këll gi bu kon parcelle parcelle ñam nga ñaar. waaw am am fa victoire yu bari de. Hmm. lu ma fa am victoire moom aw ma ko ci ay défaite quoi. Hmm. Mhm. kan ak kan nga daan. daan naa fa daan naa fa Oninga. Oninga men ah, daan naa fa Boy Sey numéro kii nii Boy euh, Moussa Dioum numéro 2. Moussa Dioum mel daan fa këll gi avant ma bëreeg moom. foog nga ko daanee Mbapat. Ah, daan fa daan arène laa la wax. non arène moom ñaa ñooñ laa jot a bërën. Hmm. waaw ñaa ñooñ laa jot a bërën. mais nga jugee ci caatu Daouda Fall. Hmm. ñu ne xale boo xamante ne làmb am nañ ci moom yaakaar. Hmm. mu nekk ci lancé bu am solo. nga daan ko jërroon jël Ronaldinho lan la. loolu du recul ci yow. dellu ginnaaw non du recul du recul parce que ñun sunu sunu bët ñoo ko doon teg feneen ah. waaw ñoo ngi ko doon teg feneen parce que ñoo ngi doon soxla ñeneen quoi. Hmm. mais tamit yàlla mooy dogal. Hmm. jaam bi day lu hmm. après sunu borom tamit mooy mottali lu mu mottali nag mooy Ronaldinho dafa nekk sunu yoon. dafa nekk sunu kanam. faaw ñu jël ko tamit. waaw. bi ñuy négocier sa diggante Ronaldinho. biñ la ko waxee staff bi nangu woon nañ wala am na ñu bañ. wala yow mbër mi bañ nga dem ba ci digg bi nangu. parce que combat bi dégg naa am ñu ci ko mu tagee ci yéen ñaar. non tageewul ci man de. man moom dañ ma ne combat bi taxaw na rek man affaire ma nekk ci lu ma nekk. combat bi taxaw na aw ma ci aw ma ci sax ay Ronaldinho lu ma ci am mooy kaw yaag Ronaldinho la sóoraale ma ko woon sama ci sama sama yoon sax yàlla xam na ko. Hmm. sóoraale ma ko dama ma xëy rek ñëw ma ne ma ronal di Ronaldinho moo fi ne. Hmm. man leen làmb la. Hmm. atiwaat nañ ci dem. yaa. Ronaldinho ki mu tuddee boppam. ñëpp xam nañ ko ci ci ci bal. Uh-huh. ni mu mel moom it mu mel noonu ci bëre. Mm-hmm. bi nga ko jëlee. dugg si stade di ko gis muy njaab mu firi ci làmb ji te parce que démb gis naa ko mu firi firi boo xam ne dafa maa bett sax. Uh-huh. lan nga lan nga ci moom. waaw moom Ronaldinho boobu la tëbee boobu man damaa bëre buñ tuddee ma Messi. yow mi waaw. mbapat mu mujjee jël damaa bëre ba Babacar ne ma kii Messi la. Hmm. ma xam ne maa moom sunu sunu football. sunu sunu bëre day neex. Mhm. parce que bu ma jumul Messi moo génnee Ronaldinho Barça. Mhm, mhm, ah. waaw kon moom tamit bu ñëwee dañ koy génne làmb ji rek. waaw <laughs> ngeen bëre arbitre bi na prip mun nga ma expliquer nan nga bëree moom ak nan nga ko jaarale ak site bi fan la amee. waaw bàyyi jili waaw loolu dañ ciy sant waa école de lutte Dalifort ah. ñooñu amuñ seen fay école de lutte Dalifort bi nag rawatina sunu père. di Père Modou Diouf di ko jaale soxnaam bi wàññeeku yal na ko yàlla yërëm ak mboolem way daawdo yi muy fekk yëpp di ko jaale ay njabootam ñëpp rek rawatina Père Tombe tamit moom def na ci liggéey bu am solo. Hmm. ku ci mel ni Séni ak Jal Diop. Kayre Junior école de lutte Dalil Fort assistance bi bàyyiwuñu kenn ñoom ñëpp dañ ci jàpp dañ ci liggéey de parce que ba nii nii nii nii nii nii ñu ngi ñu ngi ci liggéey bi bàyyiwuñu benn yoon li mm-hmm. ma koy waxee rek man saison lay entraîné te bu may entraîné saison du ma bàyyi dara dañ koo liggéey nag liggéey ko liggéey bi nga xamante ne carrément moom dong moo ñu wara liggéey arbitre sifflé ñu taxaw déglu parce que loolu lañ loolu dong lañ ñu wax ñu toog déglu bu ñëwul nga dem te noonu lañ def déglu ba ñu dégloo arbitre xam ñëwul ñu dem dox ci kawam. Hmm. Mhm. mën nga doxee ci kawam parce que bi ngay dox ci kawam dafa mel ni nga defoon caatu daaw de Fall moom nga ko bëggoon def. ndax gis naa beneen kaw Gourdin boo xam ne favoriser na bëre bi mais xeex bi tamit da nga koo favoriser ndax dama jékki-jékki rek gis nga dóor ko benn ku. daw song daw song <laughs> lan moo tax da nga bëggoon coup bi dal mu wàcc wala da nga bëggoon coup bi dal mu faible. Mhm. nga daw accompagner ko lan moo tax nga dóor ko coup rek daw ànd ak. non mooy li ma rek man bëre bi laa gënoon bëgg te boo xoolee ci bëre sax la làmb ji jeexee xeex bi dañ koy dañ koy kiiwal noonu rek mais xamee wuñ ñu xeex xamee wuñ ñu dóor bëre lañ ñu xamee tamit te loolu lañ loolu lañ def bëre dóor lañ wax da ngay da ngay da ngay dóor. Mm-hmm. après boo amee buntu pour bëre tamit nga bëree quoi. Mm-hmm. Euh, moment boobu am na action boo xamante ni dugg naa ci digg géew bi action bi jeexee. Mm-hmm. mu am lu mu lay expliquer. parce que man maa dégg ak yow. mën euh, nga ko expliquer sénégalais yi ñu lay seetaan. ba lamb ji jeexee. waaw bi nga ko moment bi nga ko daanee. ba uh-huh. <laughs> taxaw ngeen yéen ñaar mu am lu mu la wax. <laughs> waaw moment boobu dafa ne moom deful deful kaatapi quoi. dafa ne moom daanuwul mu ne moom daanuwul quoi. mu ne la lan yow. parce lool loolu rek la lool loolu la ma wax ah daanu ma affaire yooyu. Hmm. ma jóg ne ko mbër champion nga am na lu la yoon may demal nga def ko. Hmm. mais nii nii nii arbitre <laughs> jël la am na quoi. Hmm. te arbitre yëkkati na na tamit sunu loxo mo am na lu ko yoon may tamit. na ko dem def rek. kenn du kenn du ko bañal wax dëgg yàlla. waaw parce que nee ci moment bi ngay def rotation da ngaa teg ans. Mhm. mun nga confirmer loolu. non non foofu ans amu fa parce que bu ma juumul maak moom yëpp. Hmm. dañoo tooy xepp. Hmm. te yaakaar naa teg ans bu ci amoon. Hmm. bu ñu jógee. dinañ gis sama ans tegu wala sama fes tegu. wala sama ngembu tegu. wala mu takk suuf. mais boo xoolee sama dara takku ci suuf lu dul sama zone bi lii. moo ci takku suuf amul leneen lu ci takk suuf. waaw ah, amul leneen lu ci takku mais nag nit bu nekk tamit buy contexte lu muy contexte tamit am na ci droit. waaw loolu tamit dañ leen koy nangul. wax dëgg yàlla. démb bi mu ñëwee sa ci meekaay. Mhm. lan ngeen doon waxante parce que gis naa bi làmb ji jeexee presque ñëpp génn stade bi ñëw na ci sa ci meekaay ngeen wax. waaw moment boobu dañ doon dañ doon fàttali nga xamante ne dox na sama ginnaaw ma ak moom. Mhm. parce que boo xoolee defuñu sax jàkkaarloo face sur face defuñu ko. Mhm. waaw defuñu face sur face loolu tamit di ci masaw Jamaïcain di ko wax nekkul nekkul ci la nga xamante ne lu ñu neex la. dañu amoon Mm. suñu président moom la soxnaam wàññeeku. Mm. tamit mënuñu bàyyi tamit soxnaam wàññeeku ñuy dem ci signature. loolu ngant la loolu ngant la. Mm. waaw ñu ngi ciy jégalu tamit ña nga xamante ne doon nañ doon nañ toog foofu tamit di ñu xaar. te gisuñu ah. mais moment boobu dafa ñëw ci man di waxtaan ak man man may waxtaan ak moom ci la nga xamante ne mooy làmb. même bu nekkul làmb sax maa ngi moom dañoo sekk Tiwaawan. parce que macha allah ku baax la comme ni ma la ko waxee. xam nga muy seede loolu tam ci man man tam ma koy seede ci moom. Mhm. noonu la demee. léegi daan nga Ronaldinho fan la mhm. kaw Gourdin jëm. waaw Baye Djili waaw Kaaw Gourdin fi mu fa mu war daan rek di taxaw demoo fenn. gars yi wax nañ ko de. waaw parce que ñi ma daan rek di taxaw. taw làmb ji daan dem la daanu xaar. waaw noonu la demee waaw ñi ma war a jël ngay di xaar. ñi ma war a jël ñoo ma jëlu rek. Hmm. mais ñi ma war a jël dëgg buñ ma jëlee Baye Djili sama làmb coow ñëwagul. Hmm. waaw. lamb bu ñu naan Kaaw Gourdin lii danger la ci Kaaw Gourdin wala Kaaw Gourdin xam ne lii danger la. Hmm. ñëwagul. ah sa combat yaa caatu daaw dafa danger la woon ci yow de. non du danger ci man man man xam naa ne du danger ci man te samay mbokk xam nañ ni lii du danger lii du combat Kaaw Gourdin. baa jili fi ma jaar li ko waaj di waxee ama hmm. fi ma jaar dafa xaat de te booy duñ fa jaar. dama jaar <laughs> euh, fu metti ci làmb. te hmm. xale bu ndaw laa. Hmm, jaar nga fu metti ci làmb dama fa jaar fu metti ci làmb. wax dëgg yàlla fu metti nag. laa ci hmm. yan xale nga gis ni actuellement. Kaw Gourdin mën na laale ñoo mu nekk combat amateur. nekk boo xam ne làmb yëpp dañ ko soxla. dëgg la comme ni ma koy waxee rek. tey jii ndam nag ak a neex mbëri ak a ñëw fuy. dee ko déglu rek ba moom du ma ci yooyu damay xool ci la nga xamante ne du ma xool ki ma daan champion la wala du champion. Mhm. damay xool ki nga xamante ne làmb daf ma war a booleeg moom. parce que tey jii bu nekkoon damay xool ci champion fal Daara Fall a doon champion. Mhm. combat yu ma def defu ko. Mhm. kon kon du ma ko kii fii xam nga di ci nekk ci leneen ak leneen. mais tournoi moo leen. ni ma ko waxee. mais moment bii nii nii nii ki nga xamante ne mooy armée armée daf ñu war a may chance ñu bëree. ëpp ñu bu benn Eh, gaynde mer la fanaanoo de gaynde mer la fanaanoo waaw kooku maa moom dañoo war a bëre. te lu tax mu wax loolu dañoo war a bëre daam daam benn cirque bu dox sama diggante ak moom te dañoo war a bëre. maa cirque lan la waaw cirque bu garaaw ma benn mafia la quoi. nag ñu mën bi moom boo ko ko hmm. ko wax moom xam na code bi. Hmm. waaw ay link la nga xamante ne moom dañoo war a bëre. fi ma taxawoon laay taxawaat ku ci mel ni tonnerre bu ñu mayee chance ñu jël. tonnerre men bu mu waaw. santa ñi nga ñu may chance ñu bëre. santa ñi nga Modou Dia bu Yoff. <laughs> Modou Dia bu Yoff. waaw ñu may chance ñu bëre. jaadu parce que combat yi ma fi def yàlla xam na ni ñoom defuñu combat yooyu. non ñi nga laaj ñëpp jaadu nañ vraiment. jaadu na ki hmm. nga xamante ne mooy ambulance bu kees. Hmm. ambulance bu kees. Hmm. waaw moom tamit soxla nañ ko. mook ci mook mook kan ñoo doon bëre mook armée armée la bëree waaw ñoom ñaar ñoom ñëpp ku ci ñëw baax na. ki daan ak ku daanu ñoom ñaar ñoom ñaar ñëpp ku ci ñëw baax na. am na solo ay xale lañ te ñoom tamit ay xale hmm. ni ma la ko waxee da dama daje ñi nga xam ne dañ ne ñoo ñoo dàq bëre. Hmm. dama leen daan léegi nañ nañ ma jox ñi nga xam ne ñoo ëpp doole te ñooñu macha allah. Hmm. ah après ci la ñuy xam kan mooy Kaw Gourdin. jaajëf kontaan naa bu baax a di la jaajëfal. Ah. di la bàyyi nga tàggu mbokk internet yi xam naa li duufandoo ci nag bi xajandoo. xaju ci cën li waaw waaw mais lu mënta ñàkk moom fa ñu def. Ah. <laughs> waaw lii moom yaakaar naa ni. Ah. lu mënul la. nga ñëw fi mu ci am contentement bu baax a baax. Hmm. rawatina waa Wassare la maa ngi bëggee ñëpp ñoom Ousseyn gaa yëpp hmm. gaa yi nekk ci assistance bi ñëpp. xam nga maa ngi leen di bëggee rawatina fi ma fekk ni waa Dalifor Foray bi. aw ma seen fay rawatina Dalifor Dalifor. Mm. aw ma seen fay rawatina waa koñ bii nii aw ma mm. seen fay. Mm-hmm. rawatina ñi nga xamante ne carrément ñooy waa Darou Salaam waa Seras amuñ seen fay waa Cité Posu Cité Assurance. Mm-hmm. Cité Balbadère ñoom tamit amuñ seen fay waa Maris. ñoom Amet xama ñoom Baye daam ñoom amuñ seen fay bañ jàppee ba léegi bàyyiwuñu. Mm. waa Yaraax mention spéciale nag sama grand Moussa Ndoye. ñëw na taxaw na ci waa Yaraax ñëpp ñoom Loso. ñoom caatu yaraax mhm. ñoom ñëpp ñi ñëw taxaw di ñaanal kéemante mooy sunu rakk di kaaw si sa deux mhm. yàlla may ko ndam ci combat bi mu jëm ni ci barki yonent waaw di bëggee di bëggee di ñi nga xamante ne ñoo jàppale kaaw Gourdin ba mu yegg fii mhm. waa école de lutte Dalifort fàttewuñ leen benn yoon ñoo ngi leen di bëggee bu baax ñoom père xaali ñoom ñëpp père baabu ñëpp rek ñu ngi leen di bëggee rawatina waa saala saala yi amuñ seen fay ñi nga xamante ne ñooy kalamanaas mooy ñi ma fekkal nii ñooñu amuñu seen fay. Hmm. ñoom lu ne la ñuy daj ndax ñun wax dëgg yàlla sélection maara bi tamit ñoom tam ñoo ngi leen di béggee baax ñoom Ousseynou Faye ñoom Cafti Koul ñoom Layna ah, ñoom Pape Sarr ñoom Pape Mbaye ñoom Leuz gaa yëpp ñu nekk ci sélection maara bi maa ngi leen di béggee waa Njaga bi tamit fàttewuñ leen. Hmm. Mafia Njaga bi fàttewuñ leen waa Mbartal me fàttewuñ leen waa Rëbb fàttewuñ leen waa Orendula fàttewuñ leen ñi nga xam ne ñooy almaa yi nekk nag gis nañ hmm. taxawaay bi almaa bi hmm. nekk jaxay waa Kër Masaar waa Fass Mbaaw waa Tëngéej hmm. sama famille bi fa nekk ñoom tamit gis nañ taxawaay buñ taxawee waa bar ñi sama gaañ bi fa nekk muy xaadim Lamine Koor maa ngi koy béggee bu baax waa Pikine tamit aw ma seen fay bu baax a baax xanaa ñëpp ngay gërëm taxawaay bi waa Parcelles Pikine Bargny fu ne ngay nappe nii Papa Diak maa ngi koy béggee bu baax sama grand Mm. sama lépp wax dëgg yàlla sonn mm. trop ci kaw Gourdin mm. lu ne lay dégg waa Rof tàngoor tamit nekk géejawaay ñoom tam amuñ seen fay waa géejawaay sama famille yi fa nekk ñoom tam maa ngi leen di béggee bu baax baaxa baax waa Médina aw ma seen fay ku ci mel ni Lamine aw sa fay bu baax a baax gis naa taxawaay bi waa Sandaga tamit sama grand àlla mu jàllaleel ma ko gaa yi fa nekk yëpp rawatina waa uh, waa Grand Yoff sama gars yi fa nekk tamit. Hmm. amuñ seen fay gis nañ taxawaay bu baax a baax. Hmm. ñu dem fi nga xamante ne mooy Passy. ñoom tamit amuñ seen fay waa Amdalaay. Hmm. waa Kaarang waa Kaolack waa waa Sédhiou sama famille bi fa nekk sama nijaay bi fa nekk. waa Diawbe waa Guinée samay mbokk gis nañ ñaani ki nga xamante ne mooy Omar di sama mbokk di Pël Fuuta di ko wax lépp ñëw na wax dëgg yàlla affaire yëpp ñëw na gis nañ lépp wax dëgg yàlla kontaan nañ trop. parce que nit jàppale la ci lu mu la mën a jàppale loolu cant la. ngemb moom am nga ko moom. loolu ñëpp xam dara bàyyi bàyyi entraînement la affaire liggéey kese la. démb bi nga taalee nangoo wax kenn seconde bi nga rek. di may gisee nii bu ngoonee 17 ah. heures fu mu jotee damay demaat. di nga entraîné mais am nga de noonu ma gën a xam. di ñëpp bi leex rawatina. Ah. waa jaxaw Jaxaaw. Ah. Jaxaaw Sine. ñëpp maa ngi leen di bëggee dina leen ziar. Hmm. waa Caajaay Omorium. Hmm. waaw gisaguma affaire yi nag ma affaire yi ñëw Omar Youm maire de Thiadiaye hmm. waaw moom waaw yaa ma gën a xam hmm. ko teg ci loxo Ousseynou ak Assane waa Fatick tamit amuñ seen fay waa Ndiaye Ndiaye ñoom Aliou ñoom As ñi ci jàpp ñëpp waa Nguy ah ñëpp jàpp nañ ci rawatina sunu musala maire Baye Diop moom tamit taxaw na ci quoi taxaw na ci nëpp la ci mën a taxawee taxaw na ci comme lépp lu mu ci mën a taxaw rawatina nag sama yaay awa ñaa moom amuñu fayam kooku sama yaay bopp la daf may jàppale même bu dul làmb dama koy wax sama soxla mu fajal moo ko mm. suñu député awa ñaa ngi koy mm. bëggee ba sama grand sérif tamit aw ma fayam gis nañ taxawaay bi gërëm xanaa xam nga gis nañ ñi nga xamante ne tamit ñoom ceer ñoom ceer gis nañ taxawaay bi waa diaspora bi tamit mm. amuñ seen fay fu ci mel ni États-Unis ñoom Aida waa Angleterre sama gars yi fa nekk. Hmm. waa Espagne ñoom daa ñoom ji fay ñoom koso ñoom Thier ñoom ñëpp gis nañ taxawaay waa France ñoom ayda gis nañ taxawaay bi bu baax a baax ñoom Suwaadu ñoom Ousmane Kempes ñi nga xam ne ñoo nekk Mauritanie tamit gis naa seen taxawaay bu baax a baax. Hmm, hmm. waa Arabie Saoudite gis naa seen taxawaay. ñi nga xamante ne waa Maroc <laughs> lii musuma ko am gis naa seen taxawaay Kaaw Gourdin gërëm ñoo nekk ci gëstu xam-xamu tamit. amul seen fay waa hmm. axlu làmb aw ma seen fay waa Mak Bara hmm. aw ma seen fay waa Paal waa Paal non dinaa ñëw bàyyi ma gërëm waa Paal aw ma seen fay waa Sakal aw ma seen fay waa Nguma Ngéwul aw ma seen fay hmm. ñoom ñëpp taxaw nañ baax ci combat bi waa Kel wa Ngaay Mexe waa Nand waa Cey Cey waa Ngaay Mexe waa Pire waa Tiawan surtout waa Tiawan ñoom jàpp nañ ci bu baax waa Mboro tamit sama gars yi soo paree maa ngi leen di béggee bu baax a baax a baax waa Touba mention spéciale waa Touba waa Bambey waa Fissel mbaadaan ñoom ñëpp ci jàpp ñi nga xam ne ñoom waa Gudel waa Gudel tamit jàpp nañ ci bu baax a baax a baax a baax baax fàtte wuñu fenn ñoo ngi béggee ñëpp ñoom jéy bu sëñ Babacar fàtte wuñ leen waa gisu xam-xamu làmb fàtte wuñ leen waa axlu làmb bàyyi wuñu kenn mafia laalaake bi mafia laalaake bi yéen yéen waaw yéen a ma gën a xam jàpp ma boo paree rek ngeen jàpp bu baax a baax a baax di bëggee itam kalamanaas bi fàtte wuñ leen di ko teg ci loxo big moo loxo chef mm. waaw moom moo yor lépp mm. njaga bi tamit njaga bi fan mafia njaga bi amuñ seen fay waaw waañ bi jéegi amuñ seen fay ñoom tam jàpp nañ ci bu baax a baax a baax waaw di waaw sama gaay yi waaw ñoom alpha ñoom mbër boo yëpp dañ ci jàpp sama ñaari gaay alpha ak mbër waaw ñoom kaaw Gourdin la ñuy bëggee saa su ne ñi nga xamante ne ñoo taxaw nii téye drapeau bi tamit fallu ak Burama amuñ seen fay sama jarbaat yi nekk ci kër gi. sama sama jabaru mag yi sama grand frère yi bàyyiwuñu kenn di wax na bisu ngoone daf ñu war a invité ñu toog moom plateau. ama nga yaatal lu bari. loolu message bu am solo la. bisu ngoone hmm. drapeau am lañ jël. te moom nekkul ku tuuti ci dëkk bi. Hmm. waaw moom tamit daf ñu war a invité. Hmm. xam ñu toog moom. drapeau bi moom di nga dem confrontation. yóbbu waaw loolu mooy yoon. loolu dafa leer parce que ay xale mhm. te dañoo nekk tamit ci yoon. Mhm. war dimbali ñu bari. Mhm. war a dimbali suñuy xarit wala dimbali suñuy waajur wala dimbali sam suñuy mbokk. ak képp ku ñu yaakaar. parce que mbër li nekk ci ginnaawam dafa bari. te lamb ji dafa métti torop. daa ji lamb ji dafa métti torop torop. barke yonente bi. lamb ji dafa métti mais sant yàlla parce que ñu ñoo ko bëgg. lu ñu bëgg nag. fekk suñu yàlla moom ñuy jox suñu bakkan hmm. duñu mës a bàyyi parce que saa su nekk dañuy gis ñi nga xam ne ñooy waa kalamanaas sama gars yi dawal katu moto yi ñoom Cheikh Baye Fall amuñ seen fay ñoom tam jàpp nañ ci bu baax a baax a baax ñoom Cheikh Baye Fall hmm. ñoom Zo Dabala xam nga ñoom am sama gars yi nga xam ñoo yor wàllu moto bi yëpp bëggee naa leen Baye Fall yi di ci nga xamante ne mooy manqué maa ngi maa ngi koy jox nuyoo bi mu baax mu joxal ma ko Baye Fall yëpp waa taawu naa la biri wa taqwa nag maa ngi leen ziar bu baax a baax mm. di leen wax waaw nañu yokku ñaan yi waa taawu naa la biri wa taqwa mm. nañu yokku ñaan yi bu baax xam ni seen dooma yi waaw yal na yàlla dolli jàmm bàyyi jili am nañ contentement bu baax a baax ci émission bi nii nii mm. am nañ ci contentement bu baax waaw di ñaan yàlla yàlla dolli ñu sutura bu baax a baax kàttanal ñu waa mbuur tamit fàtte wuñ leen waa Mbour sama gaayan baay Zal bëgg na ñëpp borom ñaari paaka yi tamit fàtte wuñ ko. ci yàlla. waa kees. fàtte wuñ leen borom ñaari paaka kay mooy ki lay ñaanal di la jox ñaari paaka rek loolu kay leer na ay ngaaka. waa puut waa Seydou Kanta waa Seydou Kanta waaw borom ñaari paaka maa ngi lay déggee waaw lamb yi sunu kanamaa ah, saison bi. paaka yi après jaase lay doon. <laughs> Eh. jaajëfal bu moom Kaaw Gourdin tey moom la ñu seet si woon. wolof daf ne lu duufandoo ci nag bi xajandoowul ci cin wi ñu ngi koy bàyyi mu ngi gërëm waaye bëgguñu muy gën di continuer vraiment mu mu tuddu ñoo xamante ne da nga leen di dagg te loolu rafetul. moo tax ñu koy jaajëfal bu baax a baax Abdel Abdel hmm. moom tam sonn na ci ñun trop. jàpp na ci combat bi bu baax a baax a baax hmm. di bëggee ñoom Ibou Diop bu baax ñoom baax a baax amuñ seen fay ñoom laay ñoom Maodo gis nañ taxawaay bi xam nga gars yi andi seen i oto sama grand Mod Modou waaw Modou Modou. Modou Ngom. Hmm. waaw moom tamit jàpp na ci bu baax. waaw di bëggee assistance bi ñëpp képp kuy bëggee Kaw Gourdin Kaw Gourdin mu ngi lay big up xam nga di la wax waaw fa love quoi. jaajëf ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew làmb jërë ngeen jëf.